mais est-ce que est-ce que ce que mës nga toog benn jour nga jékki-jékki di dem làmb wala boo nga ñëw ba làmb ja sant na tey yow mii euh, jékku nañ la ci wàllu mystique. waaw loolu moom benn yoon la mas dal muy contre Eumeu Sène bu njëkk ba. premier combat premier combat Demba Diop. bi mu desee deux jours laa commencé am ndigg jour desee ñaari fan. desee ñaari fan. jour combat bi. Mhm. bi ma départ fii ak ah, sama oto di dem. Mhm. bi mu ñëwee ba station Castor. dama ne gars yi dem leen man ma dëpp ndax boobu sama ndëgg li mu ngi gën a metti mais gars yi ma àndaloon ñu continuer dem tëgg li Balla Gaye nga man ma ñibbisi parce que moment boobu attuna tuma mitit bi quoi mais gars yi bañ bi mu ñëwee ba ci buntu stade bi nag dama jafandu bëtt ko mëntuma dara jour boobu làmb ji waa 2S ñoo doon def kii direct dama mujj dem ba ci seen oto bi ma tëdd pour xaar ñu woo Balla gay rek ma tuusal ko boobu bëggatuloo woon ci làmb ji daal. boobu pare naa boo seetloo Balla Gaye tous boobu sax réglé wul xam nga tëgg mi doon balancé parce que lu may gën a tëgg may sama ndigg di gën di miti. maanaam lépp loo doo ci ndënd la rek. mu fayu ci man. ok noonu la demee woon. mais ñu daanee Balla Gaye fi ma taxaw dafa mel ni dara musuma dal. mbaa da nga mel ne ku yéen woon lu diis ba teggeeku ko. dama ñàkk tooy xepp dafa mel ni dañ ma sotti ndox ma ñàkk tooy xepp dara daltu ma. kon làmb jooju daal na métti ci Balla Gaye nu ko loolu la méttee woon ci yow. may la làmb jooju yëpp sama kaw la sama kaw la nekkoon man nag jour boobu la dal te ñaanatuma yàlla mu dal ma allah waaw. kon làmb daal euh, bàyyiwuñu tëggkat bàyyiwuñu euh, kii ànd ak mbër bàyyiwuñu mbër mi li ma la mën a xamal daal mooy géwël buy tëggal mbër jógal ci sa bopp ba pare xam yow ne jóg nga ci sa bopp ndax mbër mi. suñ koy liggéey estafam bépp la ñuy liggéey ba ci géwél bi ba ñu koy sotti biteel ñëpp lañuy boole liggéey géwél yi ku ciy tëggal mbër na nga jóg sa bopp.